Palen cuuraay abi produit Cissé Global Service ñu leen di may góoru bay ma sëy ni képp kuy jigéen bëgg nag rafet lool taaru jekk a teg ci nag am teint bu mucc ayib dawal gaaw nga dem fa nga xamante ni moom mooy ci abi produit abi produit di jaay ay diw yaram yu baax moo xam nga nekk teint marron teint noir wala sax nga nekk teint clair dawal gaaw dem seet ki nga xamante ni moom mooy abi produit boo fa demee dina la jox ay diw yoo xamante ni dafa méngoo ak sa yaram yow mi nga xamante ni da nga doon xeesal ba xeesalatoo sa yaram cere yàqu baax foo jëm dawal gaaw nga xooli abu produit boo fa demee dina la defaral sa teint ba mu baax di nes nes nga bëgg cheveux naturel boo xamante ne yu xew ci jamono la moo xam rew xeer ak bépp xeetu cheveux demal nga seeti abi produit boo fa demee di nga fa fekk cheveux yi nga soxla wala sax ay crème de visage yoo xamante ne dafa lay defaral sa kanam ba muy nes nes yi képp ku la gis daal di lay soob abi produit ba tey dafay jaay li nga xamante ne moom mooy ay pâte yoo xamante ne dafay xeeñal gémmiñ abi produit ñu delluwaay janoog lycée Seydina Limamou Laye boo wàccee mbaxtal gi nag mën nga leen a woo ci 77 352 38 09 77 352 38 09. produit soxlaatu leen di wër benn yoon gisal nañu leen. yow mii di jigéen di ma déglu nga bëgg lu baax bëgg sa boroom kër di bëgg ci yow H24 dawal gaaw dem fa nga xamante ne moom mooy ca Falen cuuraay adresse bi benn kott la boo fa demee di nga fa fekk ay xeetu cuuraay yu mucc ay fekk fa ay and yoo xamante ni nag ay and simple la waaye tamit di nga ay and yoo xamante ne ay and électrique la da koy branché xet gi di génnee a fépp ci biir kër gi Falen cuuraay yemu ca boo fa demee di nga fa fekk ay nuisette yu mucc ay ak bépp baax baax xamante ne jigéen da koy soxla jamono jile ngir neexal sa Fallène Cuuraay adresse bi fenn kott la yaa ngi toog di ma déglu bëgg jot ci seen ay produits gaawal gaaw nga woote ci 77 629 16 80 629 16 80 wala boog nga doxal ko fi nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Géejawaay boo fa ñëwee dinañ la teeru tatagal la. Fallène Cuuraay daal. moo meilleur kay. global service implanté wu nañu nag ci digg Ndakaaru Ndiaye di jaay ay matériel électroménager yu mucc ayib yow mi nga xamante ne da nga soxla téléphone à tablette frigo ba ci sax li nga xamante ne moom mooy ordinateur portable dawal gaaw ci Cissé global service boo fa demee ay matériel yu mucc ayib yoo xamante ne lastikri la maanaam dafa ànd ak jamono ah, Cissé global service jéemuñu ca bu ñu la jaayee matériel dañu la koy garantir ab diir bu yaatu ah, Cissé global service ba tey dañuy def li nga xamante ne moom mooy transfert d' di jaay ay matériel yoo xamante ne da koy soxla ngir équiper sa kër ba mu daal di rek taaru rafet képp ku fa ñëw rek daal di lay respecté ngir nga jot leen wooteel ci 78 ak 485 60 03. thank you bul daw man la. Ah, waaw bul daw parce que dem ba tey yaa ngi may woo mbaa jàmm la. waaw mais su ma déggoo nga wuy ma. ah da ngaa xamoon seen laa nekk. mais ak lu ma la mënta doy rek yow sa jàmm la. ah waaw dama laa soxla woon. alhamdulilah kon bu dee jàmm rek. jàmm rek ak salaam la. yàlla dafa dogal nag. Hmm. yow ku ne xam na ne sa kër ak sama kër ñoo bokk yam. dëgg la dogal bi ma am fii moom la am sa kër. Hmm. yàlla dafa dogal sa kër gee. Hmm. daa am lu fa xew te xam naa ne sa kër ak sama kër laa yemale. waaw dëgg la ginnaaw bu mbir ma amee nag ba borom ñëwee dama ne ko dama dalal sa xel te xam ne ginnaaw te nga ko samay loxo lépp dana saafara wu. waaw waaw mooy Fall. Fall waaw. Fall mi moo mën kër gi di man. maa di ki fa ñëwoon ba bëgg a gas sama kër ga. jërëjëf ay bu ma ko fa fekkoon. ay bu ma ko fa fekkoon. dalal rek ba ñëwee fekku la fa xam na ne sama wëllëre sama diggante ak yow. loolu moom kenn weerante woo ko. moo tax ba mu fa jógee dafa dafa ñëw si man. Hmm. mu xamal man mi daa ma fa bàyyam suuloon mu bëgg koo sulli am ku mu fa fekk kooku ko doo ko sulli. dëgg la man ko wax na dëgg. dëgg la lan la fa suloon ndax kër bu ko borom wutoo kenn am droit def dara te borom ñëwut lan la suloon ci kër ga léegi bàyyam ba fay jógee dafa suloon urus ci baree baree baree bari lan urus lan mbaay urus urus mel na mi li jéeg di bëgg li jéeg yi rek laa ilaha illallah mbaa kenn da ngay def nànk rek dangay def nànk loolu nekku lu ñuy wax si kaw loolu sama alal la waa déglu rek sama alal la loolu dorog la kenn du ko wax sa kaw ginnaaw demee na noonu te lépp na ko samay loxo. waaw da bàyyi ma am ndigal maanaam gas sa kër ga sulli ko. nga dem sulli wóoru si. waaw ah, bàyyi. bàyyi yaa bëgg lu yomb. ah bàyyi da nga yaakaar ni almasa la du almasa. lii sama kër la. da nga maa teg bët nag. da nga maa soxoree. iñaane ma. moo ki yow la man taluma almasa de. diggante yow moom tekki ñëw na. xam nga ni fi mu toll damaa nekk ci forosé jaay keek. xam nga ni or oh, wurus eh, eh, yooyu bu ñëwee damay bàyyi ay entreprise yu boulangerie yu mag a mag mag a mag Mor ki yow la te bul fàtte kër gi Guèye ma ko jox yow la ma ci yoonu Guèye man ak yow lay doon Guèye moo ma jox kër gi yow sa yoon newul ci yow fi mu toll géral say almasa ah moo tax may war géral sa ay almasa eh, waaye moo def tëriyaa rek man kenn damaa yooyut may tam lu ma ko ciy wax te mënoon a def samay pexe ba génne ko rek ni da mooy ko wóolu rek mu war la moom waaye nag pexe du jeex xam naa nan laay def yéen ñi nga xamante ne yéen a bëgg a ñëw si abi euh, num produit Habib produit mii yéen ñi jóge côté Pikine gi dangay ñëw ba si lycée Limaamu Laay bi nga wàcc yeeg ba mel ni kuy dem marché njaareem porte limaamu laaj bi boobu ngay topp nag boo ñëwee fii boo laajee abi produit ñu woon la boutique bi yow mi jóge nag côté côté yombol gi arrêt jàkka ji ngay wàcc topp tali noonu nga dugg foo laajte abi produit ñu woon la ko ñi nga xamante ne ñoo nekk Touba si garage bu bees bi foofu ngay ñëw si wetu station Oryx bi station Oryx foofu ngay ñëw boo ñëwee ñu woon la boutique bi lépp loo fi soxla am na fi. même numéro bi nga yor nii mooy jot bu Touba. déedéet am na yeneen numéro yoo xamante ne boo fa wootee man ngaa jot waa Touba. ban la ban la bi nga pour bi nga xamante ne bu ma ko wootee Touba ma jot ko ndax man sama ndey mi ngi bawol. mi ngi bawol te bu dee foofu doo dootuma yónnee damay bàyyi rek mu dem jën foofu. ma jox ko numéro téléphone bi mu venir ko foofu. te loolu nga xam bagage yi am fi moo raas am fii moo am fii. jox ko numéro bi. ca la soixante numéro numéro bi nekk Touba. waaw ah. mën nga ko jël 77. 77 352. 352 38 09. 38 09 waaw numéro boobu boo ci wootee. waaw mën ngaa jot waa Touba. alhamdulilah rabbil alamin waaw eh, salaam. Soroma. Teer teer teer. rek jàmm rek ko ma na nga def nag rek ci jàmm sa sunu raxam ñu ñu jàmm rek kay jàmm rek kay yéen doxee ngeen naaj waaw doxee nañ naaj kay doxee nañ naaj waaye yegsi nañ fi yooyu kenn kay ma nga def nag alhamdulilah jàmm rek ñun de xanaa jafe sax ñuy toog waaw dañ laa soxla woon rek waaw soxla woon nañu ah nga waaw ñun gis nañ la ci koñ bi tubaar fakal la jërëjëf gis nañ la baax lool waaw dañ nag xam nga nag moom nii nan teew ñu noonu waaye nag boo dara amee ci koñ eh, xam nañ ne yëgoo ko dinañ ñëw yeggee la ko ndax nag mm. eh, sa kër googu eh, nga nga kii moor gi gi la gi nga jënd ci gay léegi nag gay jox ko moor waa sa kër googu ah, moom mbir dafa feeñ te xam nga dara bu feeñee bala ko na yëg kenn di ko naane ndox dama la ko njëkk a kii bi ñuy ñëw bi ñu yemee ci sa bi ci buntu bi ñaar ñetti oto yi laa ko ne macha sama cat sama cat moroom naa ma ne ko yàlla dalaa may wërsëg xam ci laay ñëw ci ñuy ñëw ma ko waa ma ne ko yàlla may na la wërsëg wërsëg woon na mooy raam liggéey ndey da am solo de lépp yàllaa la ko liggéeyal waaw loolu laa lay wax nii sax maanaam pétrole pétrole bi ñëpp di wër ci àdduna bi muy feeñ ci àll yi ci biir kër googu noonu ki ko jaay ma diir ma ñëw na ca ga bay ji ma xool kër bi di jël bala la caa kenn jub yow. ma say ñëw la ñu bu ñu pëccee fu fees. te ñu sa paas amuñu ko mu ko comme ko duuree ko intéressé balaa cee def pexe jox paas ñu dem. ñu koy suñu tëstani bi nga gën a weex. lan ñu def nag tàgg sama saag bi nga xam ne ku teeyoon sax man maa jox lu ma ko jëndee waat. léegi nag xam nga lan la nañ nammaat suñuy tànk rek wëri leen. mënuñ koo xaar comme que dëgëral leen. ñu xaari lan waaye jëlee sa faset bii ñu dem waaye teel tey de baax sulli ba sulli maam anam. eh eh eh eh yow doo taxaw wax ak ñun. eh eh kër gi maa ngi woon ñaata eh, yow laay waxal doo wax ma ñaata yow maa ngi woon ñaata ma ne doo ma ne eh eh eh yow waaye eh, yow ay fay eh, ala ala ala yow yow doo doo wax doo wax doo wax ma doo wax ma eh taxawul wax. moor da ngaa gis moor ah waaye wax la ma jëm waay téye ko waay waay dama ne ndax da ngaa gis naa waay gisoo ko ma waay téye ko téye ah. ma say ñëw na xëy na mu dëggal ma ne ana waaye ñi jaay moor lu xew ci kër gi. wër rek wër rek. Ndiaye Mor yaa ngi ci li ñu suuloon ci biir kër gi ba tey. waaw mooy pétrole bi anam da ngay gis pétrole fu mu fee. boo ñëwee nga nuyoo waay. ba lan laay nuyoo. ah Mor Mor. la gis nga kii bu mu ñu fontoo buur yaa ngi may dégg. fii sama kër la. amoo dara loo fii rek la la booy rek la nga dem sa kër nga rek la ji ko. waaw ci kii man ak moom la. waxamaay kan sa yoon newu ci laaw. Eh, Mor waxamaay kan wàcceel sa baat. wàcceewu ma laa kii moo ma jox kër gi laa ah. moom mi kër gi man maa ko moom maa di woon ñaata man maa di woon ñaata si kër gi maa moom fee maa moom fii. moom fii moom fa. maa moom fii maa moom fii boo amoon génn si sama ngañ ñi nekku ci. nga ne. fii mëq naa suul naan naa ruy naan naa foo kër gi bu mel nii man la. di nga na ko wàccoon nag si sama yoon newu ci di nga na ko wàccoon si biti sama yoon newu ci laa wax li maa ko moom laa wax. wuy maa ngi dem nag mooy maa ngi ñëwaat waaw maa ngi dem maa ngi ñëwaat lu fi xeeñ wax mhm. mhm. fii amul dara lu fiy xeeñ eh? boo demee boo ñëwaatee fekkaat fii ay yeneen demal bu ko wuy demal demal yow xamante nañ maa yow yow doo dara demal doo dërëm laa wax xamante nañ eh, génnal kër nga am non eh. yow xam nga lan la lan yow yow yow waaye yow lan moo tax yeewoo yow lan moo tax yeewoo waaye xam nga yow waxtaanu ma ci yow waay gay génnal génn ah? génnal kër kan mooy génn génnal kër yow yaay génn yow yaay génn yow mii i jigéen di ma déglu nga bëgg lu baax bëgg sa borom kër di bëgg ci yow H24 dawal gaaw dem fa nga xamante ne moom mooy ca Falen cuuraay adresse bi benn code ki la boo fa demee di nga fa fekk ay xeetu cuuraay yu mucc ay a fekk fa ay and yoo xamante ni nag ay and simple la waaye tamit di nga fa fekk ay and yoo xamante ne ay and électrique la da nga koy branché xet gi di génnee a fépp ci biir kër gi Falen cuuraay yemu ca boo fa demee di nga fa fekk ay nuisette yu mucc ay ak bépp baax baax boo xam xamante ne jigéen da koy soxla jamono jile ngir neexal sa Fallène Cuuraay adresse bi fenn kott la yaa ngi toog di ma déglu bëgg jot ci seen ay produits gaawal gaaw nga woote ci 77 629 16 80 629 16 80 wala boog nga doxal bu fi nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Géejawaay boo fa ñëwee dinañ la teeru tatagal la. Fallène Cuuraay daal moo mayor koor la ñuy waaj eh Baye Masseye ñëw na mu bégal leen eh Baye Masseye ñëw na tey mu bégal leen eh Baye Masseye ñëw na tey mu bégal leen Ramadan ci Baye Masseye woor ci Baye Masseye Ramadan ci Baye Masseye woor ci Baye Masseye eh boo wooree ba ngoon balaa ngay dugg da ngaa war